bi mooy ligne de conditionnement bu 1 litre Star Industrie au début bouteille bi fi lañ koy alimenter léegi day am ko ku nek nekk moy alimenter bu bouteille bi bu bouteille da nga gis que ne fii nii air bi da koy pousse mu dem bu ñëwee ci léegi fi moy remplisseur bi lii ni moy remplir mom day tourner 18 beeg la quoi de 1 litre léegi bu dee bu defee tour le temps que muy def tour complet dina remplir bu fees léegi bu génnee. day ñëw ci capsuleuse bi capsuleuse bi moo nekk nii moom mooy jaare yi di wàcc bu wàccee bu bu ñëw rek euh, day gis day jël cap pour ñëw bu ñëwee bi mooy tourné mooy tourné ni capsule ko léegi mu génn léegi mu continuer léegi bu tey ñooy continuer jëm si si cap ci étiquetteuse bi étiquetteuse bi moom moo nekk nii da ngay gis que ne rouleau étiqueté moo nekk na le bu bu ñëwee rek moom day jël automatiquement day day da koy étiqueté bouteille moo nekk nii mu étiqueté bu pare mooy un litre bi léegi bu pare euh, dañ léegi bouteille bu pare day am ñuy jël nii dañuy jël di ko stocké nii après dañ koy def ci ay carton ay carton de de douze carton bi douze bouteilles lay def mais carton yi après dañu war a recevoir stock bi tey léegi bu ñëwee euh, instant fii lañ leen di stocké mais après dañ leen di def ci ci carton léegi carton bi bu ñëwee carton bi douze bouteilles lay def douze bouteilles def un litre bu ñu bu ñu ko stocké ci carton yi léegi après ci la ñuy doog a livré client ñëw ñu doog ko jaay